ngay gis da ngay gis ay ay ay ay ay nit ñoo xam ne ci taatu garab yi lañ leen di sampale ay biteel ñu toog Sénégal rek mooy réew boo xamante ni yow dangay ngay paas ci car rapide yi da ngay dugg da dugg da ngay dugg njagajaay dangay ngay dugg dangay da ngay lépp lépp ngay dugg mais di fay say impôt xanaa xamoo ne nit ki même buy fay benn facture courant kese kese kese rek mu ngi am alal ju muy dugal ci biir état wu Sénégal kooku loolu muy fay noonu ay impôt la su feebaree war na cee gis boppam faju ci waaye yow da da feebar sax pour nga ñëw boo am soo amul ticket ticket ticket kenn du la laal seen yoon nekku ci boo dundee boo dee kooku ñoom seen yoon nekku ci mais mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam surtout yéen sénégalais am na loo xam ne yàlla du wàcc mukk defal leen ko yéen a koy defaral seen bopp gëm seen bopp élection jot ngeen xool koo xamante ni leer na leen su ngeen ko joxee seen réew mi mu defaral leen ko mais su ngeen ko tegaatee ci loxo ñii fi nekkoon depuis 1960 ba léegi 60 Senghor a fi nekkoon indi fi politique am boobu noonu bu salte boobu mooy ay saaku ceeb ak 20 litres diw Senghor a ko fi indi moo ko fi indi moo ko fi njëkkee Abdou Diouf bi ñëwee dafa continuer ci li Senghor a nekkoon saaku ceeb 20 litres diw ku wax ñu jàpp dóor ci kaso bi Abdoulaye Wade bi mu ñëwee commencement bi ñu ñëpp ñu suñu xel dal ñu ne ah kii de li mu daj jàpp nañ ko fi tëj nañ ko def nañ ko lu nekk mais bu muy def fin wu mandaam bi corruption bu dul jeex ay million nga doon dégg ci Abdoulaye Wade ay millions. Macky Sall bi mu ñëwee ñu ne a ah, kii kat bu ñëwee ah dinañu lijjantil alal ji nga xamante ni suñu alali sénégalais la ñu delluwaat ci sénégalais lu mu def doomam bi nga xamante ni doomi Abdoulaye Wade bi nga xam ne mooy Karim Wade mu dafa jël suñu alal na ko delloo si waat ñu toog di xaar alal jooju gisuñu dara soo waxee nag waa APR yi naan la xamu leen ndax am na lu ñu doon gars yi delloo ci suuf nu ñuy delloo ci suuf yéen ñu ñu waroon a delloo alal jooju yëpp léegi ñu ngi seen ana Omar Sarr ministre la ko Macky Sall def Omar Sarr ministre la ko Macky Sall def léegi ana ñu doon wax naan yé euh, léegi booy passé fi ñooy saaga sëriñ si wala ñun loolu ñun démb daf ñu fay fekkutoon démb fi la ñu fekk. Souleymane Jules Diop bi muy nekk Canada li Mollah Morgun di def nii tey Mollah Morgun sax da da koy da koy rafetal du saaga sage san mais Souleymane Jules jóob moom li lim fi yàq sëñ Modou Kara lim fi yàq sëñ Abdou Aziz Sy Junior yàlla yàlla yërëm ko li mu fi wax Junior yàlla na ko yàlla yërëm ba taxaw naan ab li mu wax Junior ne moom ak ba Jean Paul Diaz bàyyi Barthélemy Diaz boobu ñun ñu ngi gën a nekk ay xale mais lépp lañu dégg li mu wax Sëñ Béthio Thioune moom Souleymane Jules Diop boobu Abdoulaye Wade di ko tëkku ne su ñibbisee Sénégal mu dóor ko ci kaso bi bi président de la république falo nu mu def da koo indi biir Sénégal def ko con ministre conseil kon kay kooku moom tey moo woon moo won yoon bi xale bu fi xale saaga amul mag bu ko war a wax ni ko noppi. ndax lu tax Souleymane Jules Diop doon saaga démb ak bërki démb tey ñu jël ko def ko ministre léegi mu ngay mu ngi fan mu ngi liggéey fan UNESCO lañ wax xaw ma fan la nekk ku ko fa yóbbu lu tax mu fay liggéey da da nga déggati muy waxati jafe-jafe yi sénégalais yi di dunde te moom moo fi waxoon ne bis bu ngeen falee Macky Sall di ngeen ko rëccu yéen sénégalais yi moom Souleymane Jules Diop moo ko waxoon léegi ñu ne kenn amatul droit wax kenn amatul droit wax sax xalaat mel na ñun yoratuñu carte d'identité Sénégal mel na Sénégal léegi ñaari parti la billaay kuñ fiy fay sa bor nga mer li nga lebale woon moo baaxul surtout yéen waa APR su usmaan soo ko mu ci ay jafe-jafe patriote yaa ngi ci ay jafe-jafe ngeen di tëgg ko tàccoo ko sabaru bi seen bis dina ñëw seen bis dina ñëw seen bis yàggul dara dara dara dina ñëw bis bi ngeen xamante ni tey jii yàlla dina leen dina dina leen won boppam noo yàlla mënu leen a ñàkk àtte ak patriote yi doomu jàmbur yoo xamante ni defuñ dara lu dul bëgg seen réew ngeen jàpp ci faat ci soixante personnes te ci yeneen nit dóor ci kaso bi billaay bis dina ñëw ci bis xam nga jant bi mu ngi dina dina toog ba mu yàgg mu tàng nga toog ba mu yàgg mu nga dem ba mu ta ba timis di waaj jot jant bi sedd dugg ci biir suñ la waxee na la yàlla am na rek war nga koo gëm président Macky Sall li ngay teg doomi sénégalais yi li ngay teg patriotes yi nga xamante ni léegi boo nekkee patriote sax sa yaay moo lay njëkk a woo ne la man damaa tiit sama maire ne la bu fi teg sa tànk réew mi instant bi dafa tànk jir bu fi kenn ñëw encore yéen tamit sama mbokk moodu moodu yi yéen tamit yéen a ngi nekk ay patriote gis ngeen li xew Sénégal toog leen si réew yi ngeen nekk 2026 soreetul affaire yi changé keneen yor réew mi ngeen dem ñibbi seen réew ngeen dem ngeen dem ngeen dem seeti seen i mbokk comme nga xam ngeen ne moment bi ñu toll nii boo fa demee koñ bi nga jëkk a dëkk sax ñoo leen njëkk a signalé ne kii ci booy Sonko yi la bokk te ñoom même buñ la même. la dëkk nee na moo ko wax ne ko na dindi bracelet xoolal yooyu sama yaay nee ma noppil balaa ñu lay jàpp waaw gis nga loolu mooy Sénégal man maire téléphone la ma woo ne réew mi bu fi teg sa tànk fekk élection yi jàllul ñi naan la noppil ñi naan la waa ji danaa la jàpp mel na yow waa ji moom dafa mel ne yàlla da ko yawar rek pour mu pour mu war a ñëw rek pour toroxal ñu quoi xam nga c'est maanaam ci problème mu xaalis bi c'est problème mu xaalis bi mooy maanaam nga fekk ay jeunes toog xam nga yëkkati benn cinquante cent mille francs jox leen mais suñu jëlee ñoom jël jël alal jooju séddoo bu fekkee cinq lañ wala dix lañ kenn ku nekk vingt mille francs la war am bu fekkee cinq personne lañ léegi imagineel kenn ku nekk am vingt mille francs léegi benn booy bu nekk seen biir bu gëm boppam toog ne leen ah gaynde sa waay may nañu cent mille mais est xam nga ne alal jii mu ñu may moomu ko alal sénégalais yi la ñun faluñu ko pour mu yëkkati alal di ñu ko jox mais amee ah, mais dañ koo fal pour mu defal ñu développer ñu Sénégal pour mu defaral ñu suñu réew pour mu defaral ñu suñu gox mais loolu jeunesse bu confiant moo koy am moo koy xam mais yow da ngay da topp ci ginnaaw nit yow tey ji naka ngay ñëw nit ñëw ne la damaa bëgg a falu ñëw ci yow toog wala mu toogoo say mbokk yor maletam yëkkati joxe dara jox diw jox diw ñu ne ah kii séddoo leen ku ne dix mille ku ne dix mille xaalis boobu xam ngeen fu mu fan la ko jële ngeen jël élec élection jot ngeen dem ci bureau bureau bi même bu ngeen ko voté léegi bu ngeen ko voté loolu moom du ci xam dara mais loolu kan moo ko fi jëlee loolu kan moo ko fi jëlee ci diggante bu gàtt bii Ousmane Sonko am na ñoo xamante ni dañoo dañ doon campagne Sénégal di wax ne ñoom dañoo bëgg doon maire di maye ñii di maye ay Jakarta ñii di maye ay cinq mille ñii di maye ay trois cent mille mais booy dañoo bàyyi dañoo jël xaalis boobu ba pare mbaraan ko bi voté jotee ñu nem dugg ci ci mbañ gàcce mi votel Yewwi Askan bi mais loolu xel la kan moo leen yee ci xel moom Ousmane Sonko moo leen leen alal ji ñu leen di jox jël leen seen alal la yéen waaye bu ngeen demee ba ci mbañ gàcce ma xool leen ki ngeen war a votel ngeen votel ko léegi loolu moo am Sénégal de boo dof dof loo di génne sa alal di génne alal ji Sénégalais yi di ko pasare dañuy jël xaalis ba pare bu ñu duggee fa ñu war a voté ñu votel ki leen neex loolu moo waral président Macky Sall amoon cent vingt six députés dem bay xëccoo quatre vingt et un ki quatre vingt deux dem bay xëccoo ay député loolu moo tax ndax jeunesse bi instant bi am na parti boo xamante ni yeewu nañ mais yeewu nañ mais am na parti boo xamante ni dañu seen adduna yëpp seen adduna yëpp ci fen ci fen lañ ko bugg a teg ak taqaleeg tappale dem dem dem su sa ajuma jotee nga dem ci benn ministre wala nga dem ci benn kenn benn responsable politique mu yëkkat cinquante mille wala cent mille jox la nga ne suba dama waroon dem Bali dama waroon dem ci Sidi Diop wala dama waroon dem ci Wally Seck nga jënd tubay bu bees jënd dàll bu bees dem ci Wally Seck ñu lay woy wala Sidi Diop ngay baatare te li ngay li ngay baatare alal li alal alal joo xamante ni dañ la koo sarax la léegi yow nga war a yar njaboot ëllëg war a doon leneen ëllëg nga bugg a topp ci may ma bu dul guddi ak bëccëg kañ la sa avenir di baax kañ ngay kañ ngay egg fi nga jëm kañ ngay egg fi nga jëm ndax da ngaa dépendre ci benn doomu aadama pour mu lay jox seen benn vingt mille franc wala benn trente mille franc. mais Fatou du c'est yow Fatou comprendre ba léegi parent bi pa Fatou Sénégal dafa métti. Fatou Sénégal da ngay sa sa bàyyi day xëy go sept six heures du matin ba ba daanaka sept heures ci sept lay ñëw ndax lan nan lay def ba taxale dépasse dépasse ne boobu paa bi lu mu mën mooy eh, bu inscription jotee mu yóbbu la nga dem ci école bi dem jàngi mais mënul mënul régler kër gi guddi mënul régler kër gi bëccëg maire bi commencé di jaay de dem ci garage que ñëw wala muy dem marché ak a ñëw léegi yow am na yoo xamante ni mënatu koo tal mais nit ki mooy faatu nit ki moo war a dem ba jombal boppam yenn yi faatu moo war a taxaw ne man am na am na yoo xamante ni parce que tamit nit kii kenn mënu laa jënd faatu dafa am loo xam ne alal mënu ko jënd gém ñu lay woo ne la kaay ñu jox la benn cinquante mille wala benn vingt mille franc boo xamante ni yow da dem nga paati baal ba sa xol sedd bu dimanche jotee nga nelaw ba heure bu la neex lundi nga jël say kii dem école nekk fa di waxtaan naan noon Wally Seck bi maa ko toj Samba Diop bi maa ko toj yow tojoo école bi tojoo dara li ngay jàng sax sa xel nekku ci foofu laay waxee il faut jeunesse bi ñu gëm gën a gëm seen bopp xam ne lépp lu ñu bëgg ci seen réew mën nañ ko am yow fi ngay jàng ba pare li ma gën a métti Sénégal da ngay jàng jàng jàng jàng jàng daanaka sa avenir bi yëpp da nga koy jàng yow sept ans ñu dugal la école yow trente ans trente cinq yaa ngi jàng yaa ngi université ba léegi law fay defati daanaka sa dund gi yëpp jeex na say morom say morom yi nga xam ne da nga ànd ak ñoom di ambulance sax di ñi nga àndal sax ñu nekk fi di ambulance dix huit ans dix neuf ans vingt ans ñu commencé am tout tànk balaa ñu am trente cinq ans am nañ sa morom yow.